waaw acte bi acte de participation la comme ni ko sëriñ bi wootee ci màggal gi ñu dajale ak sunuy kilifa euh, ñi nga xamante ni ñooñ ci jàppale pour ñu am 5000 masques pour indi ko jébbal ko sëriñ bi donc ci turu ndaw yi Mbàkke yëpp donc ànd ko ak sëriñ Saliou Bousso mu ñëwoon ànd ak ñun si délégation bi ak Modou Amar Diba ak sa Sala ak Saliou Dieng ñu ñëw doon ko jébbal sëñ Bass pour mu jàppale ko ci màggal gi donc bii nag dañu am suñu benn euh, xarit bu ñu àndal bu tudd Sophie bu nekk aux États-Unis mais dafa am fii GIE moom moo ñu jàppale woon ci masque yooyu noonu pour ñu mën ko confectionner jox ko tailleur yi nekk ci dëkk ba quelque ñu defar ko ñu indil ko sëñ bi pour sunu participation ci màggal. waaw local la pour nit ñi aussi local bi lu ñu ci jublu mooy que ne xale yi nekk ci dëkk bi am ci luñ jàpp ba am luñ màggale moom moo tax ñu jël ñun consommer local bi defar ko indil ko sëñ pour xale yi. waaw am na yeneen loo yoo xam ne nii ñu ngi koy confectionné yoo xam ne yeneen kilifa ñoo si jàpp pour que ñu loolu jouru màggal gi la ak après màggal gi ak bu ñu suba la màggal pour distribuer ko ci Mbàkke Bawal donc loolu moom beneen pàcc la boo xamante ni si parcipation ndaw yi màggal gi la beneen bi mooy mbale mi nga xam ne dañ koy def Mbàkke Bawal donc di jàpp si màggal gi comme tout le monde. fa ko affaire association yeeg daayira yeeg ñëpp ñoo ko defandoo donc ñu jébbal ko sëriñ bi si turu xale yi Mbàkke Bawal yëpp. waaw sélection moom yomb na. dañuy def benn li nga xamante ni boo base de données bi ñu am ñañ fa jot am ci ak ñoo ñu jëm leen contacter ñeneen ñi ñu takk ay rajo yéene ko fu ñu leen mën a fekk ci seen point focal yi seen jëwri ni ñëw ñu jox leen ko jébbal leen ko.